defe naa ñi ñëpp borom xorom saa ngi nii kii moo doon keroog xorom si ca signature contrat ba moo doon wis xorom si rek mais maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp ah mbaa mbaa am ngeen jàmm yéen a ngi si jàmm waa alhamdu kon yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yëpp nag saalif maa ngi lay ziar sëñ Saliou ñu ngi dellu ziar ba di am nga jàmm waaw ñu ngi yàlla ba du ma la wooy Sa Thiès man sëñ Saliou laa lay woo da nga moo ma dàqal foofu nag man bu la bu dul laam boo ma ko wooyee du ma la faale sax Sa moom dëgg la daal man de Salif bi laa tàmm. waa gis nga mais ñu ngi sant yàlla baax a baax julli ci yéen bi sant suñu ñaari waajur di ci kàddu bi aussi tamit ñu génn àdduna ñëpp yàlla nañu yàlla yëkkati yi tëdd hôpital aussi yàlla yëkkati leen yi caab fiti ginnaaw yàlla ñu caab fiti kanam di ñaanal suma papa Gaston yàlla na ko yàlla suñu borom yëkkati doomam yi yàlla suñu borom teg leen loxo magan moo mbéy bi mu amit aussi mu réussir ko waaw. Euh, Salif li ma lay njëkk a laaj mooy. combat bu toll nii defe naa ba ngay bëri ci sa carrière ba tey yaa ngi door a bëri pour man ci li ma jàpp komba bu amee nii coow combat bu bëree nii tension combat boo xam ne démb ni ngeen def arène nationale yaa Reug Reug ak la am arène nationale démb defe naa nee naa man sama reportage démb mu ngi fay door am combat bi yow bi mu taxawee noo dundee combat bi ak tension bi ci amoon. waaw avant tout maa ngi sant sama sëriñ Cheikh Abdou Karim waaw di sant bu baax a baax njabootu Serigne Touba gi yëpp jël ko teg ko sama loxo sama sëriñ Cheikh Abdou Karim Mbacké di dem Tiwaawan den sant bu baax a baax Canaba Ndiassane Yoff Seydina Laay maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax gis naa atu bi mu tàpp yëpp mais Babacar moom fu man combat bi sama combat ak ñoom boo ñaaw gën a màggoon ñun waaw ak li mu sama combat euh, Nukuril noonu la amoon tension parce que dayo boobu noonu lañu tolloon nag stade bu ndaw lañ bëree Zarko tension kase euh, nu mu tudd sax Boy Ngaay it bëriwoon na parce que boobu bool-bool yi benn lañu ñu woon te xam nga bool-bool yi moom bu leen yàlla nattoo rek ba ngay bëreeg ñoom stade bi du ñoom nga fa place bu ñu déggoowee moom wax dëgg yàlla kenn leen ëpp supporter loolu leen yàlla may. sama combat Boy Niang natation aussi ñoo tolloo niveau trop trop boobu jamono kenn mënul dem bàyyi sa morom xam nga tey sama combat su ma neexoon damay jël benn adversaire mais bee mënumaa mënul dem mënu woon dem mënumaa dem il faut ñu bëri parce que xëy na boobu yàggoon nañ ñoo topp bëri leen bëri leen mais boobu amoon na ci benn kilifa pa pa paala paala paala def naa waaw moom ma doon ba ma mënuma bul jël combat bi moom lay seet lay seet mu koy ñaanal baay la bokk ak naag maam baay benn boor maam baay bokk naag maam baay ñas benn boor yal na yàlla barke ko bokk ak Baye Niass benn baa day du caaxaan yal na nga fi yàgg te amiin yal na yàlla taaf sa barke barke Baye Niass borom faydu bi mu mel ni loolu moom leneen la yal nañu yàlla taaf si barkeem Bécaye eh, Sa Thiès déggal di ma waaxu eh, saa yaa ngi woon fu neex nga ne père pa la dañoo mës a daje mënuma saali fa na ko waa mënuma dimbale ma rek maa la ko ñaan bu leen jëlagul combat bi waaw bu leen leen ko jëlee duñ leen fay lu ko jar waaw te loolu yàgg na ko ci remercier samay mbokk aussi tamit xamoon nañ loolu waaw du heure mais mu nee ba ñor kenn ku ci nekk la nga ca bëggoon am nga ko bëri nañ ko ci jàmm mu am ndam sama kaw te Père Palla tey moom moo indi démb rëg-rëg di ménage mais gis na la même du sa menacé mais jàpp na ne booy ñaa heure bi ngeen war a bëri bu ngeen ci bëri da ngeen di xaalis ngeen ci bëri du ngeen am xaalis si si loolu la woon war nañ ko ci jàmm euh, ne moom dém moom neexoon na mais mais biir làmb li ci xew yëpp nga xamoon ne lan moo andi enjeu combat bi mais boo xoolee combat saison bi taxaw dafa bëri ay xale ak mag waaw grand contre petit bëri na mais bu ñu ciblé woon combat booy pour man duñ tudd suñu komba ndax am na combat yi daal que suñu combat yi mais nag xëy na waaw mais bien sûr booy ndaw yi bu ñu xeeb seeni combat mais amateurs yi nag seen gis-gis bu ñu xa ñëwee ci dañ ne saison ren bi combat saa ci seeg rek rek mooy combat da la ne lool la Sénégalais yëpp waxoon moom te daa mel ni mu mujjee am. ma ne leen ci condition man ak moom ñu bëre combat bu bi tax ñuy wax loolu. waaw kon bëre wu ngeen combat bu tax ñuy wax. dama ne. xam nga c'est-à-dire que combat de l'année combat bii la mais bu ñu demoon tey jii benn action am fa bu ñàkk fay rek combat bi jeex la la ñuy wax fi ñu daan xaaree combat bi gisuñu ko fa ok par rapport ak démb dañoo bëre dañoo xeex. mais dikkaatal ma ci film combat bi première action bi bi indi quatre appuis yi ñuy wax ak dernière action bi nga xam ne moom itam ci la la daane loolu dikkaatal ma ci film combat bi première action bi ñëw surtout loolu. waaw man da man ba ba arbitre sifflé taxaw naa ci ay secondes yu gàtt di ko defar. ma xam ni du ñëw parce que ba arbitre sifflé rek dèjà dafa dem woote te dafa dafa déplacé wu. waaw ma xam ni du ñëw ma dox ñaari pas ba ñetti pas mu anéeraat ma reculé boo xoolee deux pas ci digg bi mu taxaw fi mu taxaw ci laa ci bu suuf dem ba ma demee euh, dem di ko sànni gauche mu jiwaloog man del sama tànk ba ma jàpp ne jàpp na fu baax. ba ma ba ma ba ma parce que dafa ma bëggoon a dajale. dafa bëggoon dajale waaw. ba heure bu dajalee nag dem ba war a eskiw ma tasaat ba heure bu dajalee ma tas. nga mu dem ba mujj mu def mun xam naa daal naa def rotation. ma ree ma ne ko damaa xam man loolu moo ko defoon. jël bi naa man maa ko mën a daan waaye mu ko daan. Ah, cubb na ba dajale. xam nga rëdd musul dajale nit mu esek mais man damaa xam ni ñuy yàqee xam ni ñuy defaree. ci biir làmb déedéet bëre man sama bëre bopp damaa xam ni ñuy yàqee xam ni ñuy defee moo tax nga yàq li mu mais nag moom xeex bi la daw tax mu daw xeex bi pour yow loolu da koy laaj ah yow mi moom nag waaw man damaa xeex moom xeexul da nga ko dóor lu dal wala wala liñ ko dóor dalul da ñam nag ñamul xam ngeen ci daal dara Babacar kanam bi moom waxoon naa ne fu ma gëmmu dóor dafa ne woon lan su may dóor naa xool ma ne ko sa kanam bi rëy bi su ma fu ma lay dal <laughs> loolu laa ko wax boo xoolee deuxième bi am na xaw na kaaw am na kaaw mais comme moom lañ joxoon favori moo dàq bëre <laughs> moo dàq bëre moo dàq xeex dama koy bàyyi ak lépp xam ne neeyu moom bokkul ak doole. mais ci biir action dama gis dernier man action boo xam ne pour man saa ci tëdd na mais ma gis nga élagé wu yokk sa tànk ca ginnaaw sànni ko lu sore sore daa mel ni sax loolu moo tas ay loxoom ba mu dugg ci suuf. dajale na ba samay tànk jegewoo lan moo ko tasaat boobu maa ko tas man maa ko tas action sur action la heure bu buubee ba yàq bi ma daje ma yàqu mu def rotation ma jiit ko ci rotation bi bàyyi ko muy déplacé wu dafa diis ma fàq pois bi mu jël man boo dëgg yàlla suma ma waroon conseil du ko jël non non waxuma baaxul de mais dafa bëri dafa bëri c'est-à-dire que Reug gaawul ko trop que su jëlaatee poids day gën a yéex day gën a yéex. gaawul te bu jëlaatee poids day gën a yéex. gaawul trop. gaawul ci bëre. xam nga ni boo ngaa gis seetaan rek rek. non non man man football laay seetaan Babacar. billaahi wallaahi wa taalaahi. bëree naa ba nu ma toogee nii xanaa yenn saa ma gis esat ñu dugg rek rek ma xool nii bàyyi ma dem. mais gis nga ne du mbër mu gaaw. son xam naa du mbër bu gaaw. ba pare mu yokk poids pour yow. waa mu gën a yéex pour yow. mais wax naa ko. c'est-à-dire que bu combat taxawagul. loo nit du ko dégg parce que amagul defet mi ngi ci MMA bi mi ngi ci lutte simple bi mais ça n'a rien à voir ak ko dafa am ñoo xam ne dañoo xam làmb am ñoo xam ne xamuñu dara ci làmb te nag ñoo gën a bëri wax. ñi xamul làmb. billaahi déedéet sa classe gi dañoo tey moo tax ku ñu juum problème la yaa may dégg yenn saa dama naan seetaan. bés bu daan def direct day am ñu muy invité. waaw waaw. amoon na benn waay ju neex laa mel tur bi nag jàpp. waaye dama dafa dafa am benn benn benn benn loolu li def na trois mois 4 mois. bés da ko mos a ko bu Sa jàppe jàppee tànk Reug ko du ko daan. mun ko bu ko waree ndooma mënu ko mënu koo daan ba léegi jël bu des na. mënu ko bu Sa jàpp kii mënu ko day jeex. damaa ndoroon dugg woo ko mais dama ne jaru ko dama koy won déedéet dafa xamul am na nag ñoo xamante ni kaa mala la benn affaire mun nañoo wax lu leen neex pour nit ñi mën cee bàyyi ñu bàyyi leen xel ñun suñu sport bii rek laa gis ñooy fekk ay boxeur dem fekk ay karateka dem fekk ay MMA ñu koy laaj suñu suñuy mbir. fekk libaas caméraman. ma ne gis nga ni ku nekk dangay yem ci sa sport bi nga am. mais am nga droit rooti feneen. foo mën a rooti ko si yow la engagé mais dama ne Babacar man bëri door laay def mun naa seetaan football waaye xawma ma règlement football. yaa may dégg règlement football ma la wax lii ak ma koo wax. mais mais yenn saa nga séntu jour fii bu génnee feneen te la muy entraîné xamoo ko nga bëgg koo léegi ma ñëwaat ci sit bi mu mel ni bi li nga lim foofu yëpp bi combat bi jeexee kon foofu yow bi mu wàccee dëpp ci suuf gis nga ne def na kaat appui arbitre arbitre moo leen atte wala yaa ko bàyyil sa bopp. xam naa ni jeex na moo tax moom arbitre arbitre dafa yuuxu. billaahi arbitre dafa yuuxu. kon moo kon arbitre moo atte combat bi. dëgg la ma wax. billaahi wallaahi wa taala arbitre mi ngi sëgg di boo xoolee mi ngi sëgg ci kii bi. ngi sëgg jàpp sama kon moom moo la bàyyil moo moo yuuxu nga bàyyi. man daal leen rek laay wax ci côté boobu. nañu vigilant waat suñu suñu sport mais nit la. arbitre waaw c'est pas première fois erreur yi mel ni di fa am mais lenn nag laay wax pour en ëllëg démb policiers yi xeex nañ fa ak supporters yi sièges damm nañ fa nañu bàyyi xel ni sièges yu ko damm. erreur de arbitre bi ak fa andi. maanaam boobu siège dammee pour yow arbitre bi la. si mais arbitre c'est le maître du terrain Salif bu dee maître du terrain it la. waaw logique moo tax ñu teg ko fa. arbitre nit la est-ce que du juum. ok nit la kon moo du juum kon bu siège gars yi juumee ba xeex ak policiers yi nañ ko nañ ko engagé xam nga chaque fois yenn saa nga gis ñu def mbër lu metti coow am ci euh, coow am ci mbiram ñu naan dañ koy sanctionné wala yooyu man maa ngi xaar loolu yëpp. ñaanu ma man maa ngi xaar man aw ma lenn loo xamante ni dama koy daw ci kenn yaa may ma la nañu xoolaat li ñuy arbitré nañu xool li ñuy def Babacar man sit bi mun na am wala munu am. ci diggante ba mu ñuy woo wane nañ ko direct gars yi di ko xool mais télé boobu lan lay jëriñ lan lay jëriñ lan amul lenn lu mu jëriñul. mais lu tax sàqi woo yow. lan moo doon may sàkki. non non non mënumaa sàkki parce que règlement dafa am lu ma may. parce que ñu bari dañ ne am na ñu ma dégg ñu ne bu ñu leen di woon doo bëriwaat. barki Serigne Touba Mbacke mënuñu maa tere bëri. force bi nga bëri waatee. billaahi wallaahi wataalaahi. mais deuxième euh, action bi lan. deuxième action moom. li jëndeetu ma dara. xam naa ne daan naa ko mënoo ma baay ko sama bopp dama noonu naa ko fa noo naa fa dóor rek su ma yónnee ko ci su ma daanee baax na su ma daanu baax na mais jëluma benn engagement damay yëmbëri si. mais sa am na lu ma seetlu dem rëg-rëg bi muy tuus da ngaa génn stade bi ba jeex luñ la digal la da de bañul déggum tëggam maaraa la ko wax wala ko la wax loolu da ngaa yoxosu de man loolu laa bàyyi xel man ci làmb ji da génn. dangaa neex foo awoon nag. nëbbatuma damaa génn. dangaa génn foo dem man egg si nga géej waay. non non génn bi sax daal ma ne defar moo tax. mais déggoo kala ñii de. man dégg naa ko moo nekk ci biir te doo dégg dara. mais rek nag nee na daan na la te ama lay laaj fi mu nekk ni waa rëpp moom dee rek. Ah? rëpp moom dee yàlla moom. moom dee laajte moom eh, laaj nit. Ah, tëkku nit waaw dëgg ma la am na plein droit la soxla. ah moom yàlla def na jar na ba pare ndax ñaari combat xaar maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom génne ko ci ñaari combat am yëpp yàlla may ko ci ndam ci kaw ñaari combat yi mu am yëpp aussi di ñaanal suma mag Balla yàlla may ko ndam ci combat mook Eumeu Sène parce que dëgg yàlla yooyu daal la ñuy déglu di xaar. loolu laa moo fa am <coughs> mais l'essentiel moom ñoom luñ tal ñun taluñu ko moom dëgg yàlla. ñan liñ tal ñoom. ñoom ñan waa Thiaré. nañ ci jàmm ah. dëgg yàlla pare nañ ci su ma daanee nangul na ko félicitation mais bu ma ko daanee <laughs> nan da nangu rek. jàpp nga ne daan nga ko. leeru Alxuraan su ma kaat appui woon. billahi ak sama bakkanu bopp barki leeru Alxuraan foofu laa koy fekk jokk drapeau gis nga lii rafetal. moo gën lii yàq. du ma ko jàppee ndax mbër la dafa am li ko tax a andi ñoo bokk benn bëgg-bëgg ñoo bokk benn bëgg-bëgg ñoo bokk benn bëgg-bëgg ndam la bëggoon ndam la bëggoon ku ciy wax nag waxal loo xam rek baa nga wax loo xamante ni lu waxu la moom la à chaque fois làmb moom ñun ñoo ko mën a defar ñoo ko mën a yàq mii man di promoteur bi di yéen ñii amateur te amateur sax moo jëpp coono ndax moom mi fay biir moom mi fay biir di dagg paas di ñëw. waaw lu ne mën na ko ca fekk mais waa Géejawaay démb ni ñu génnee. Géejawaay mooy laa mën a. démb gis naa maanam ñëpp a génn a ah. guy gi Lac naa ko barki démb mu ne ma Reug Reug la ma wax. Lac de loolu la ma wax ki nga yar ki nga yarul du benn. waaw dama ne ñun combat bi mooy sama premier sortie sama retour Guédiawaye man fii laa tàmbalee école du Balla jóge fa dem sama école du papa nekk fa di remercier waa école de yëpp ba jàpp jëmale ci kaw di fexe ba ci mbay sos maa ñëpp ak mbër yi fa nekk mais combat bi moom li ma la ci mën gi ma ci daj gëj naa ko daj ci combat. coono bi man di euh, Balla Gaye de bëri mois de janvier passé daanu. yow nga ñëw war a bëri te guy gi daan rëg-rëg ne gaalam géejawaay la ko ser loolu nekkul woon pression si yow. a daal xam nga tax amoo ci benn xam nga championnat. championnat waaw. Hmm. tey dama naan suba dañ naa ma écurie Waalo ngay entraîné ji gannaaw suba écurie Mor Fadam gannaaw suba école de Balla Gaye gannaaw suba beneen écurie écurie ne géejawaay yëpp mbër yëpp da leen daje andi. noonu nga entraîné combat bi. noonu la ñu préparé suñu komba noonu lañ préparé suñu combat li nga wax nag yóbbu ma ko ci laam andi ma ko ci laam saa à dire nag am na ngaa ko yoo xamante ni moom bi ñuy wax da nga leen ree rek xam nga dafa am foofu boo fa soxla boo fa tolloo xam nga li la war dama nga defe ko pression du dara lu ah, xel yow yaa jël sa xel ni lii moo ci nekk ja loola ci nekk barki alxuraani karim combat bi laa ëppee xel bu dal sama yeneen combat yi ba ma dalee bëri ba léegi bii la sama xel gën a dal barke alxuraan nag laa la waata Lamine deux semaines nga nii damay faj sama épaule bi deux semaines maa ngi faj sama épaule lu nekkoon ci Mali lan moo lan moo la jotoon nii. dama cee blessé woon. da nga blessé woon ci épaule. avant combat bi avant combat dégg nga bu ñu desee deux semaines. bu ñu desee deux semaines barki alxuraani karim maa ngi dem ci benn clinique bu nekk Ségol foofu laa doon fay gis nga woon nii xam samay épaule gis ko ñu gàjjale ko pour sama kii mais nag def su ma yàq làmb su ma neexoon damay toog ne dama blessé te du mujj fenn. li ci contact la dalee wala sport da sama entraînement la ma dalee maîtriser naa ko demoon nañu ba billah wala wa taala ñu bëri teewoon nañu ne ñu aj combat bi man ma xam nekk sama xol rek xam ne nekk sama xel ma maslaa ak ñoom ba yàlla suñu borom may ma muñ cee bëri. laa mën a dafa am fu muy toll da koy defar am fu muy toll mën nga ko yàq mais ñun nag yàlla moo ñu moo ñaale bokkuñ ci yàq la am te heure bu ñu jugee doomu duubalee si ñoo sonal gars yi xëy na ñooñu ñoo leen loolu moo leen déranger. Siteu de sampal na Balla Gaye dem. ma wax man waxi moom leen ak laa ci am li ko wax. li mu defar. Fodé la defe naa Fodé la tudd ah. waaw Fodé bi waaw rafet na lool. loolu dëgg yàlla maa ngi koy ci ñaanal yàlla suñ borom defal ko ci jàmm lu rafet la def te loolu kenn ku ci nekk comme dal yàlla na la ko yàlla suñu borom may mooy bañ ko mën a def mais quant à leneen lu mu def ci laa ji moom repp la rek ah, waaw loolu dong laa ko tuddee ah. ku repp ci kuy bu ndaw bi nag xar bu ndaw bi moom bu mag bi moom xamu nu mu war demee ah. léegi ma jeexal ak yow nag kenn koo xam ne moom ñëpp paraan sa combat ak moom man sax wax naa ne laaj naa ko dem perte fage ma na ko rëg euh, Bombardier lan moo tax mu am envie bëreeg Sa Thiès mu ne ma bi Bombardier ji njëkk a wax Sa Thiès dinaa la may sax ne boobu man tafaage maa ngi toog Bombardier lu sa diggante ak moom sama fans la da nga koo fan man eh, moom ah, moom moo la fan sama fils la boobu sa fils la sama fils la grand la boo xamante ni ku fonk la dëgg yàlla respect dox na suñu diggante torop jàmm doon na suñu diggante trop malgré comme toog jotaay nii nii nii non dara arrivé wu ñu de mais yàlla moo lay mooñaale nga bëgg nit waaw xëy na moom dafa bokk ci ñi nga xamante ni daf ma daf ma daf ma bàyyi xel. te aussi grand compte petit bokk na ci euh, li ma ñi bokk na su juumul bokk na ci ñu ko njëkk a su ma jumul nag su ma juumul laa wax gëm naa ni ragar naa bokk man. bokk na ci ñu ko njëkk a wax kon fier na torop torop torop torop torop moom loolu sax nee na du garaw parce que xam moom dafa bëgg a bërëg magam yi bërëg moroomam yi bërëg rakkam yi ñëro doom waaye bii nag moom mi ngi lay yaa ngi koy xaar bii moom maa ngi koy xaar ana doomam ji dégg naa yaa ngi nobanteeg doomam pour ñaareel waaw man ah, coow li mu tuleeg maal loolu mooy maa ngi toj loolu la xanaa tam maa ngi koy gis ci tiktok bi ban doom ñaareelu Sa yow xam nga xale bi. wax dëgg yàlla man billahi wallahi wa taala. bëgg a bëreeg bomba ji bëgg a takk doomam. benn nit laa mos a toog mu woo ma na ma yow doom bomba ji man ko doom bomba jiw la mënuma ma jiw doom ji ma ne ko man lan ma mooy suma ci loolu ak man lii lu ko fi andi. boo demee nag. waaw xëy na papa jee bëgg ma takk ko mais bàyyi ma duma sa papa ba pare ma daan ko. am na ñu xool yow naboo xale bi gis yàlla xam ko gisuma ko sax ah, billaay xale ba macha allah damay bañ bombu dóor ma mais rafet neex naa xool de daa mel ni gis nga ko de gis naa ko kon nan la ko may bom <laughs> ah, waaw mayel Babacar waaw eh, yaa ngi ci benn yaa ngi ci ñaar la kon ba ma jox ko mi ñetteel ah non non non ma sama il faut man ñetteel a guma de ñetteel a go non maanaam dinaa fas moom il faut moom li ma bëgg a pare yow dama fa sax dama non non non dama mbuur. yow Bombardier bëgg na la doom ji bëgg na la mbuur mbuur leen nag laa sekk moom bu ma ko dumaa daan ko dem seeti ko yaa may dégg mooy loolu xam naa bu doon sagoom sax man faraa dëkk ji Bombardier boo jëloon pour dëkki mbuur nag yow it waa baax na bëri Babacar sàkkul jàmm quoi <laughs> sàkkul jàmm moom bu doon sagoom man maay bokk moom ndey baay Balla gay jël keneen mais nag yàlla moo dogal man bala Gaye ma ko ndey ak baay mais nag grand bu baax la franchement parlé maa ngi koy euh, ñaanal blessure bi aussi euh, di ko encouragé di félicité Tapha bi ko daan parce que làmb la làmb nag lu ne lay dikkee ah lu ne lay dikkee euh, Tapha Tine noonu la war victoire daan na ko am na ndam ci kawam félicitation moom it grand bu jantal la ko baax la franchement parlé waaw Bombardier moom it saala gis nga ko xelu ah? soobu nga ci mbojum tafa actuellement cité wu ma kenn kenn kenn kenn kenn xam nga laa cité. waaw samay kilifa. say kilifa ngay dégg kase kase kase ngay dégg hmm. am na keneen wax boo fi waxoon de nga ne am na benn xale chrétien bu ne la boo daanee ma tuub an xale boobu. waa golf yi moom la ñuy wëri di. Ah. dañ koy jëli naa ko yoko yaay moom jàpp ne su ma dem Touba. waaw mbaq laa def yóbbu de waaw. Touba kay la war a dem tuum. sama yàlla. mais Salif kontaan naa ci yow. non ñoo far. buñ fi waxee tamit loo xamante ni lu waxuwul la ñu ngi jégalu baax a baax te xam ne xel motul bu jaaroo it ñu xam ni yàlla suñu borom la maa ngi remercier aussi ñi nga xamante ni dañ may jàppale. Ama Fall franchement parler dama ko sonal sonal sonal sonal dara dara desu ci poosam billaay bàyyi yitteel yëpp nekk sa combat bi rek ñi ànd guddee bëccëg suba ngoon maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram Andaw Ndiaye. maa ngi koy sant bu baax a baax a baax sonn la def yaayam def feebar bu yóbbee yaayam hôpital bu pare li mu njëkk a def balaa moo tëdd day dem di jënte ma sama émission te gi ñu ma koy ñu ma ko Moussa Fall mention spéciale dëgg yàlla kontaan naa trop trop trop ci moom ndax jël na ñàkkam def na doolem képp ku mu xam ci kii kurus ak li mën a ñaan ba mu am ndam ak képp koo xamante ni xam na ko pour may ndam rek yàlla suñu borom def na ko mu dagg yi téem jël essence am def ko ci li ñu togg fii moo ko fendi maa ngi koy sant bu baax a baax a ñoom ñett ñooñu miis nañ ma nag moom waaye chaque fois suñu ànd day gën a sama samay kilifa lañ lañ di gërëm Aziz Baye Ndiaye Kor Ndiak Masata famille Baye Alé yëpp Ama Baldé aussi tamit maa ngi koy gërëm bu baax gis nañ taxawaay bi di gërëm tafaanaar Tafanaar moom it dëgg yàlla xamel bi yàggul sama mag moom ko présenté bi wàll ba sa Omar waaye daal sonn na trop maa ngi koy ñaanal yàlla suñu moom dafa ko jàmm di gërëm Mbaye Touré dëgg yàlla maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di gërëm sama benn xarit bëggul ko tudd turam ne mi ngi dëkk euh, Mermoz moom xam na man xam naa yàlla xam na di nuyu aussi ji olympique waaw coach maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di nuyu aussi tamit papi moom it coach la di nuyu Lamine Golo di nuyu Xaadim boxeur di nuyu suma xarit yi nga xamante ni ñoom laa da àndal kombaa bi di commissaire seeni waaw seeni mercredi seeni bi lu sama doom la dañ ma ko dénk sama xarit la sama doom la Karfat maa ngi lay encouragé bu baax a baax a baax yàlla baax na yoon bu jeexagul di nuyu El fay di nuy suma ñaari rak yoo xamante ni fu ma dem di maa ngi lay nuyu seeni euh, Simel ba dafa dafa voyagé woon di ak Idi ndax ku ne xam na ni ñaari rakk yooyu kenn ki oto la yor kenn ki mbër la yitte yëpp dañ koy dagg di ñëw wax dëgg yàlla sonn nañ trop di nuyu aussi tamit suñu jabari ci kër gi mi Awa Dramé Cheikh Ibrahima di nuyu Buri Bàcciri Seri Balla Gaye waaw di nuyu xarisaay sama soxnaay bopp la di nuyu njaboot gi ñëpp rawatina di nuyu wax sama waa ak Sadio Gàbbi waaw Sadio yàlla ku sonn la ci man jibel nee na Fall dañuy sonn trop trop trop ci combat bi waa Gàmbi yëpp fan si club Sakho famille yëpp di nuyu waa Casamance su ma limee damay juum aussi Saada waaw dama ko dama ko récupéré léegi sama saf la bokk waaw Ahmed jërëjëf Saada kontaan naa Jibi Diop maa ngi koy sant bu baax a baax a baax aussi di nuyu waa Gambie waa Kolda waa Guinée Guédiawaye Kër Massar Boune Golf Touba Tivaouane Kaolack Ndiassane yoof bàyyi ma fenn Seydina Laay kontaan naa ci yow di nuyu sama seexi yàlla yi Ousseynou Kassane seenoo Kassane maa ngi leen nuyu baax a baax a baax sama boo yi xamante ni fii lañ nekk depuis combat bi ñoo doon fanaan fii ci mbedd bi Bira aussi maa ngi koy sant bu baax a baax di wax nag sëñ Ousmane Ndiaye bu maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax waaw sëñ Ousmane Ndiaye waaw jam xel. saa demoo kon non non kooku sama xarit la. mais fan yii wala. encore daal foofu la fa laa yem Assane. bees maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax waaw maa ngi koy sant bu baax a baax Sey Ousmane nag dafay am chaque année ay gàmm yi muy woote te yàlla rek a tax mu di ko def gàmm gi dellusiwaat na di ci saaku ñëpp ma lancel ko yu doom Sey Ousmane Ndiaye. sëñ Mansour jaay mooy bàyyam mais man sëñ Ousmane Ndiaye laa féete yàlla na yàlla jàmm defal ko jàmm Lamine Sénégal maa ngi sant monde entier Père Baba moom sama baba la du ko sant ma ko gërëm suma yaay moom maa ngi koy mos a coono bu baax a baax a baax a baax maa ngi koy mos a coono bu baax a baax a baax a baax li ma koy teg bu doon sama sago naa ko leen leneen li ma koy teg daf bëri coono bëri coono sama yaay heure bu nekk jël téléphone am di wala ma jékki-jékki ci cay nelaw gis ko mu tiim ma toog yokkul sa yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na yàlla guddal fan ba njabootam yi nga xamante ne tey ñoo fi nekk yàlla suñu borom defal ñu jàmm di sant nag aussi suma taaw papa di malal famille Sakho yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax Balla Gaye di Omar Sakho suma mag Ibrahima Sakho yàlla na yàlla defal leen jàmm Ibrahima mu ngi Italie yàlla na ko yàlla defal jàmm ak ñi fa nekk ñëpp sama dem bàyyi mais maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm mbër géejawaay yëpp fu ma limee damay juum mbër géejawaay yëpp maa ngi leen nuyu di leen delloo sa njikkoon mbër Kër Masaar aussi tamit maa ngi leen sant leen gërëm Lamine maa ngi sant Sénégal monde entier di nuyuwaat di nuyuwaat sama sëriñ si Abdou Karim waaw di nuyu waa Nooto yëpp teg ci loxo Tony Tony mbër baabu ndaw bu mag bi waaw xam ñoom yaay benn lañu mais Tony bu mag sama xarit la ah, bu mag bi waaw sama xarit la ñoo war a ànd waaw di leen nuyu ñoom ñëpp Tony rakam bi nga xamante ni moo fi nekk aussi yàlla ko yàlla defal jàmm di euh, ñaanal waa école de Balla Gaye fa am combat ñëpp yàlla na yàlla suñu borom may ndam ak école de Double Less gi yëpp yëpp ñu fa nekk di préparé yàlla na yàlla may ndam sama rakk bi tamit dafa am combat maa ngi ñaan yàlla yàlla may ko ndam yàlla suñu borom taxaw ko ci durant carrière parce que xale mi ngi doog a débuté maa ngi sant ñëpp di la gërëm aussi tamit. moo tuddati daan ngi nii sa Fodé. fi sa Fodé moom damay wax ne yéen a ko gën a saf daa mel ni de. non non dafa lewet. Ah, dafa lewet waaye moo gën a sadik. Ah? moo gën a sadik nag. dafa yaru non day jàmb de. wallaay ñoo ko kalmaloon nii rek. mais xam naa ne ay mbiram moom bu tàngee. non moo ñu gën a tàng nag barke alxuraan dafa am yar trop yar bee ko sonal. non non dina yëpp dina changé mais bii mooy premier combat boo xamante ni moom bu jeexee di nga xam ne boobu moom mooy loolu ñaanal ma ko. yeeyaa sama beneen rakk bi ah maa ngi koy sant bu baax mooy Casamance sa nekk sonn na trop trop trop trop ku lim daa juub Babacar képp ku ma limu rit maa ngi jégalu jibiloo maa ngi lay sant bu baax a baax. Massa dégg nga soose. lekk def naa mooy tuuti. <laughs> Ah,